Assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah ñu ngi siyaar di magal suñu mbokki xaqul mubin TV yëpp di leen fatali ne ñu ngi tay ci bisu gamu gi mu di nabi bi organize organiser fi ci yëmbal di kër Cheikh Mouhamadou am al Amin Guèye dina nak euh, dañu nekk ak suñu magum daara bu baax mu di gaynde faq Mudi ku ñëpp mu Cheikh Manoumbe ñu woowoon ko tey di ko laaj ci cheikh bi dañ la doon laaj ci maanaam liñ lay woowee gàmmu lan moo di gàmmu en tant que tel ak ni ñu koy feetoo Sénégal maanaam lan mooy sabab bi. waaw alhamdulilahi rabbil alamin waaw ñoo ngi sant bu baax di gërëm euh, di kontaan bu baax ci li nga xamante ne laaj nga ko ndax euh, lii nga xamante ne bunt bii nga laal. ci yalla warna ler. leer ci ñepp ñi nga xamantene ne ñoy defando mbir mi ndax gammo ñi ka xamantene ne ko tuddé moy wolof yi ñoo tuddé gammu gam wayé arab yi ñom ñi ngi ko tak ci maulid wayé maulid gogu nak dafa am lo xamni ni moom lay tektal moy njirign bi nga xamantene jaam moom ci la feeñ muy yàlla dafa doonoon njëriñ goo xam ne dafa làq woon ci biiram waaye bi mu bëggee njëriñ loolu feeñ faw mu feeñal bërëb boo xam ne ci la koy jàngalee ndax ësal ba ëbët mbooleem xeetu njëriñ dafa am ci kum dencu waaye njëriñ yooyu nag munta feeñ mukk ndare bu ki nga xamante ne ci lañ ko peesalantee nga xamante ne bépp wàllu bépp xut bu samaan bépp yonent bu mës a ñëw laal na ca la nga newoon ba wane ni la nga nekkoon ci la newoon ba it bépp wàllu yu yàlla wuy ñëwati ci xam-xamam ak leeram ci ngay sukkandiku kon dafa feeñee mandarga yi nekk nit waaye ndekete nekk nit gi mu nekk nit njàngalem yàlla la kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñ gi mu feeñ ci espace ak temps njàngale la ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci buntu ëhlu tasawuf waaye njàngale moomu moo waraloon ñi nekkoon ci buntu tasawuf yëpp doon def lu ñuy tuddee gàmm ndax daanañ def burda nga xamante ne dafa am fu ko jëlee ndax yàlla dafa am ci benn saar bu mu wax ne wal fajari wala yaalin hashirin muy fukki guddi yooyu nga xam ne moom la ñuy burdaal nga xamante ne dañuy xaar yeneen ñaari fan ya muy fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm ngir ñu mën koo gàmmul waaye fukki fan yaak ñaar it dafa am ci lu mu jàpp ndax fukk ñaar ay araf la yoo xam ne dafa am fu muy mate te fukk ak ñaar moom mooy weer yi nga xamante ne xutbaa nitu lay tekk fukki xut book ñaar yi nga xamante ne buñ sujjootee at mi door a mat ñu tax ñu ne atte bi door a mat te atte bi mooy Muhammad te mooy Muhammad ci jëmm mooy Muhammad ci tur mooy Muhammad ci maqaama te maqaamam mooy xam-xam kon xam-xam moo moom moo révolutionné kawnu bi te yàlla xam-xamam la dij muy jëmm waaye jëmm jëm ko dij nag. mu don ko ndax ñaar dafa bind ci ñaari daraja innama amruhu iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun lolu xam-xam la waaye xalaqa samawaatin wa ardin fi sittatin ayamin suma astawa al arsh li jëf la jëmm la motax bi bii lay firi waye bi ruh lay firi te nak nit li yàlla xamone ci azalam li nit xamone ci azalam moy li yàlla xam waaw kon nak faaw yàlla feñal entité bo xamne da ci dëj jangalem ngir feñal ay ay ay ay xéewalam ak i martabaam kon nag jëmmi gàmm maanaam mën naa ni mooy ëmbëb yàlla bi nga xamante ne dafa dencoon li li nëbbu tey ak liy feeñ ak liy feeñi ba ilaa yawmil abad waaw kon nag ñun noonu lañ déggee gàmm euh, bërëb bi dafa méngoog ki koy aye tey muy Cheikh Mouhamadul Amin ndax euh, ku ko gis xam ne yàlla denc na ci moom ëmb boo xam ne njëriñu kullu jaam la waaw kon nag ngëneelug yàlla googu dafa feeñaat ci moom ndax ngëneel googu xam-xam ak leer moo ko wane ndax balaa kenn nangul yàlla balaa kenn gindeeku ci yàlla du moins da ngaa njëkk a dégg kàddu yàlla. waa togg muy togg di togg di togg ba ñor waa ñu door a yàq door a door a sóor door def la ca des waaw kon nag euh, yal na yàlla dolli waaw loolu daal lañ amoon ci kàddu gu gàtt gu waaw gu tënk gun mën a leeral waaw leneen lu daal di indi rek ñu daal ci wax lu nu nam gën a rafete macha allah cheikh bi yéeg maanaam liñ ci wàccee am na solo xanaa suñu dernière question ndax kii bu ndaw la rek moo dina tey fi tey ci jaam bi dem ba àgg ci yàlla. ba li ñuy woowee ngëneeli gàmmu gi mun a yegsi ci moom sang bi. waaw alhamdulilah waaw eh, ngëneel googu nga xamante ne moom la ñuy wax mat lay tekki waaw mat te yàlla mooy ki mat waaye te yàlla dafa joxoñ mat melo boo xam ne bépp rijaal boo xam ne yegg nga foofu ci mat nga nekk. ndax dafa am ay buntam yoo xam ne képp ku mu ko jox nga méngoog moom te bunt yooyu képp ku ci méngook moom bokk nga ci jëmm yi nga xamante ne yow yaay bokk ci imaamu nit ñi kon mat googu nag moom la yàllay feeñal ci nit ñi cër boobu la kenn ku ci ne di wuti waaw moo tax euh, laylatul xadar li muy foor foor mu ngi ci biir gàmm waaw mu ngi ci biir gàmm ndax gàmm tey bi ngeen di bi ñuy seeti kilifa gi bi nga demee ci moom sëriñ bi nga gis waaye bi la bim la soobee ci yàlla keroog la doon sab sang ndax dangaa ngaa gis nga am bët mu am bët nga am tànk mu am tànk nga am loxo mu am loxo donte loolu yéen ko bokk waaye am na loo xam ne sut na la ci nag ndax da sa boroom ndax li tax dangaa ngaa ci moom waaye sóobu bi nga sóobu ci moom nag bi mu la sóobee nag nekkatul sa moroom waaye sa borom la mujj doon kon sa sang lay doon. kon sang boobu mu doon ci yow bu la sangee ba nga setit dafa am loo xam ne moom moo lay yokk nag kon am nga mbaax waaye ngëneel nga ut kon nag ngëneel googu nga xamante ne du jeex te jamono bu nekk nit soxlaxaat ko ngëneel googu nag moom mooy li nga xamante ne moo moo moo fay baax rijaalulaahi kullu yi ngëneel googu moo la fa ba moo tax yàlla ne sant leen ma ma dolli leen ndax dafa dolli ba noppi daa door laa yëgal ne la war ngaa sant waaw kon nag ku sant ñu dolli la waaw kon nag sant googu moo waral gàmm gi. macha ah ñu ne de sant nañu gërëm nañu Cheikh bi wax dëgg yàlla sant nañ gërëm nañ bu baax a baax di leen rappelé ne ñu ngi nekkoon ak ma numbe di gaynde fàq tëdd di borom euh, cant xare Badar yi xam ne bu yàggu rek la xewul la xewoon xanaa di ne ñu ngi leen di remercier yéen ñëpp. waaye ñu ngi ñëwaat léegi léegi rek ndax am nañ beneen góor yàlla ñeneen ñoo xam ne nii dañ cee war a indi seen i kàddu di leen sant di leen gërëm bu baax sang bi bégee nañ la. jaajëf